fii si stade Iba Mar Diop arbitre bi siflé na bo samedi 21 décembre 2019 bo yemal Xeeru Ngor xeeru day xeex ah bo yemal jël ko bo yemal jël ko Xeeru Ngor takk na ko Xeeru Ngor takk na bo yemal Xeeru Ngor bo yemal oh bëri na ñoom ñaar oh ba ndana lay ay production wa bëri loo ñu andil ndeysaan bo yemal Xeeru Ngor bo yemal Xeeru Ngor da nga so ñoom ñaar ba ñu ci xabal nañ ko. Ah, eh, lu ah, na lu ma gis am na lu xaw eh. eh, am na lu xaw ko ci xabal. ah daanu jàllale ko. Badou lu ma yaakaar. am na lu ma gis. Ah, xeeru ngor boo yëmbal am na daa jaxasoo woon léegi de. jaxasoo woon na moom. boo yëmbal moo daw na cobat kii di xeeru roof ko ci xabal. roof ko taxaw wéeru ko. arbitre nee nag dañoo ànd jaaxaan. na dañoo njaax waaye am na lu xew foofu de. am na lu xew foofu de. sit boobu dinañ ci dellusiwaat. dinañ ci dellusiwaat. Oh, ña nga sa ñoom ñaar delluwaat nañ fa ñu nekkoon. Leewtoo comme d'habitude. delluwaat nañ fa ñu nekkoon. ah jël ko jël ko mu wàcc jógaat mbootaat mu bañ. mbot mu bañ. xel nga njëkk na ko. jaxabal ñanga ca ñanga ca. booy yëmbal daan na ko booy yëmbal daan na xeeru ngor. booy yëmbal daan na xeeru ngor. waaye pëcc xoo na. xeeru ngor bañ na de. xeeru ngor bañ na. xeeru ngor bañ na xeeru ngor bañ na. nee na bañ na. xeeru ngor kaay. xeeru ngor kaay.